alors champion ñu ngi lay nuyu. maa ngi ziar gerte. tey noo gis na war a arbitre euh, arab di jëlee jëlee lii di match bi. waaw tey daal mooy loolu tey daal xam nga boo bëggee dégg-dégg affaire yi warul yomb dix premières minutes wala quinze a dugal waaw bu ñu paree teg leen lu métti wala ni leen lool mooy loolu fii suñu ñoxam moom yaa ma gën a xam. affaire bi booy pigile nga war a def tey. non may dara di ñaanal suñu frère yi nekk ci équipe bi yëpp xam nga suñu xarit Euh, Cheikh Kouyaté xam nga Gana Gueye Papa Cissé doomu Pikine di ñaan suñu boom defal leen jàmm di leen wax ni tey daal comme ni nga ko waxee sénégalaisement affaire gaynde bi nag tey la gën a a feeñ nag. tey na bi score bi ñaata la tey dañu rek wala 3-0. match moom yomb na yombul parce que ñoo xam ne da leen war a recevoir si dëkk te tamit ñoo waruñu dugal day metti quoi te yëngu mu mag la quoi donc dañ ñaan suñu boom defal ñu jàmm rek incha allah. bu jeexee jeex na jaajëf. Allah. No. bu jeexee jeex na moom frère. awa jàmm bu baax. rajo bi nga gën a. rajo bi nga gën a.